ba ba ba ba ba Abdoulaye Wade di ma tànn di ma def député ak ñu ko bëggoon bari. mag ñi bëri nekk député yëpp nekkoon ko woon. bi ma lay def ministre. mais d' accord nga ne bëggoon ko amu ko. d' yi position bi ñu jox c' était pas ah, mm. mais c' est important pour nga politiquement mais ñi politiquement nga dugg ak gis nga configuration. politique waaw non dafa ndànk xam nga man nga dugg ci foofu. man moom sama place ci réew mi. Ah. ak sama taxawaay ci réew mi. aajul falu wala bañ a falu. parce que li ma lay ja li ma li ma bëgg mooy. Euh, ñu bëri falu nañ tey xëy na dañuy dabe. pour yegg si fi loolu du problème ci man. Mhm. xam nga ma purox bay bañ a gërëm ñamu daaw. Mhm. bu ma bokkul ci place bu baax tey amoon na place bu baax démb ak barki. d'accord léegi léegi. te ñu am place. Ah, ñeewal ji faloo non non lam leen jaral. Ah. ñenn ñi lam leen jaral. ko. waaw léegi léegi monsieur le ministre. du ma tëkku du ma xàcc du ma xiiru. ngir bokk ci place ci jamono joo xam ne Abdoulaye Wade leen la moo ko desoon lu muy joxe mooy place su député ci liste partem waaw léegi léegi léegi léegi léegi monsieur le ministre yow sa ànd ak Macky Sall ñëpp xam nañ ko n'est-ce yàggoon ngeen ànd et tout euh, euh, nekkoon na fi sa parrain euh, nga jékki-jékki am na je me rappelle ba ngay officialiser sa fin wu compagnonnage ak moom da am cette phrase merveilleuse mm-hmm. nga ni bu la ne nga tànn entre parti bi xaw ma ak Macky Sall. Mhm. nga tànn euh, Macky Sall. Mhm. bu ñu nga tànn entre Wade ak Macky sàll nga tànn Wade. xam nga noonu nga ko waxee woon. mais mais xaaral ma àggale sama question ndax cinq minutes moom dese. léegi euh, euh, tey jii man lu ma leer man a ah, man man en tant que observatrice lu ma leer tey mooy bu doon continuer woon nga ànd ak Macky Sall tey nee ma doo nekk premier ministre waaye. di nga bokk si ñi ñi ñi ñi ñi ñi nga xam ne euh, dinañu euh, te te amoo regret parce que xam nga yow ñu bëri lu ñuy reproché uh-huh. dañu reproché ne xale nga euh, et que intelligent nga donc je mets que amu benn sondage wala j'ai pas vérifié ndax intelligent <laughs> mais ñëpp loolu la la jàppee et que surdoué nga et tout ça bon am nga benn cursus scolaire boo xam ne mi ngi wax ko ak benn parcours politique boo xam ne wax si yow mais ñu bëri dañu la reproché ne da nga da nga yàkkamte da nga pressé et que très souvent da ngay jël ay mauvaises décision am na tamit ñoo xam ñu teg si yow euh, benn euh, euh, je sais la neex mais ñu bari dañ jàpp ne dangaa mën trahir ñoo xam ne dañ lay jàppale donc gisoo ne tey jii bu nekkoon ne continué woon nga ànd ak Macky Sall ci naaj bi ak yi seen relation nu ngeen meloon yéen ñaar fi mu la teg Macky Sall que tey jii bu yéegee di yéeg amoo ci benn regret benn pincement au cœur tey benn réccu laa ci amul lu tax ma ci réccu daal li ma wax yaa may wax mhm. koy xeex ci salon am laa toog jël décision ak moom démissionné gouvernement kuy wor ci politique. te la ñuy joxe la gën a rëy mooy ministre. duñ la ko jox nga delloo ko. dañ maa tabb am lu ma ci neexul moom laa ci waxtaanal ñëw dem ci premier ministre. waaw mais enseignement xaw ma da nga xeeboon non non non lañ ma joxoon man ñetti yoon la ma yoroon. leneen moo ci nekkoon ma ñëw démissionné dem. assemblée nationale. fekkee nga di yëpp. ñu président commission affaires étrangères ñu dàq ma ca li ñu ma dàqee mooy demande ak Macky Sall. dàq ma UGTEL maa ko jiite woon congrès Kaolack jël koo xam ne maa ko tegal sama wet maa ko jël nommé ko moom. Ah, def ko sama adjoint mhm. ñun la ñu jëndee ma ko. Mhm. ma nekkoon relation avec les jeunes ci comité directeur ñu dàq ma jox ko Massaly xeex ma fi. Mhm. xas ma fi lu lu def nañ ma ko. loolu def nañ ma ko. mais ma kon ne ci loolu bi ma toog ak président ñëpp toog ñu may wax ni seet nañ ko waa bureau assemblée nationale dama ne président bu ñëpp di ñi fi toog doon xeex ak Macky Sall man ak Macky Sall bàyyi la. moom ma leen gënal mais bés bu la Macky Sall sommee bés bu la Macky Sall songee yéen ñaar pare naa ci moom maa koy njëkk a song parce que yow laa yoral bor bu may fay mais yoral ma ko bor. ñoom defuñu ma li ma nekk yàlla ma ko jëlee ko ci Ablaye Wade moom laa amoon kóolari gu mm-hmm. fekkal ma ci biir. bi Fada demee créé waar wi. Mm-hmm. ma des ci Ablaye Wade du ma ma fekkaat ci biir. Hmm. bu ma ko toppoon ku ma war du Ablaye Wade <laughs> bi Macky Sall demee. Hmm. moo ko toppoon lu ma def du ma waru Ablaye Wade hmm. kon bu war amee nañ xool ñuy war man dama nekk war par rapport ak ki ma jox njëbbal mooy Ablaye Wade mosuma sa der déggu li ma la wax. mosuma cee changé. Fada bi ñu ko bëggee sànq fii nii. 2004 yow fekkee yaa ma doon interviewé. bu muccee na gërëm yàlla yonent bi sallallahu alayhi gërëm ay way juróom mais na ma gërëmal santaale nangoon naa dee ci place am wala dee dee dee ak moom. xam na man xam naa. kooku kuy def loolu du koy wor waaye nag dama nekk koo xam ne sama yaay jurul surga. jurul ak toppe. dafa jur koo xam ne ni dafa bëgg réewam xam place am ci réewam di xeex réewam te kooku wax na la ci kilifa gi ma ci am mooy Ablaye Wade. xam nga naa ko ci kanam Ablaye Wade wax ko ci kanam parti bi. Mhm. wax ko palais ba. Mhm. dem émission waxaat ko fa. Mhm. tegaat ci ne. bu ma dinaa def suma kéemtalee katapu Abdoulaye nekk président de bu Sénégal mais bu faluwul ñiy xëccoo ñëpp kenn laa ko ci yéene mooy ma Sall loolu suñu diggante ñoo ko seqoon mm, mais nag ay léewéen nag ba muy dem ci cëppandal ga man maa ngi ci la ma nekkoon mais est-ce que ba léegi am ngeen contact dafa nag maa ngi ci la ma nekkoon continuer faluwaat ci mm-hmm. am ci responsabilité biir PDS ñamu àndal falu nañ nguuru liggéey def seen ay pexe ñu ñi àndoon perte ñu nekk di perte di xeexaat pour faluwaat c'est-à-dire ku nekk mun na nekk sa place mais réew mi ñoo ko bokk war ko waxtaane war koo mhm. péncoo xam nga bu ñu wax ay retrouvailles parfois retrouvailles nekkul tekkiwul seddoo place seddewul euh, euh, loolu tekkiwul seddoo place li mu tekki mooy jàmmoo mhm. diisoo péncoo bëkk réew mi ki fi ne ñu nangul ko moo fi ne ñu xool naka lañ koy jàppale bañ koo gàllankoor ba ëllëg ku ci sa moomee ñëwee nga mun ko wol tey bu la Macky Sall woon di nga ñëw di nga ko wuyu woo ma ci lan non. président de la République bu ooyee citoyen mu uyu ji ko. waaw léegi yow ah, man président moo moo jiite ñëpp. bu ma convoqué kenn fu ñu ko bind. waraguma. Mhm. ndax ay libéraux lañ am déet man bëgg naa naa leen naa def sama gëstu ndax ñoom ay libéraux lañ wala am déet. mais nag mais je pense que euh, discussion boobu libéral wala wala duñu ay libéraux lañ wala duñu ay libéraux. waaye li may wax léegi je crois que li gën a intéressant. xam li ma wax mooy. Ah. li ma wax loolu mooy transhumance. waaw man nag fi ma jaar fi ma jaar. Hmm. ak li ma seq Ablaye Wade li ma seq PDS jël samay dëbës. fu daw PDS dem ci beneen parti loolu jekkul sax yow tamit moo koy def. <laughs> waaw léegi monsieur le ministre <laughs> loolu xam nga liggéey ci bopp liggéey ngir réew mi. waaw tekkiwul da nga war transhumé. Ablaye Wade liggéey na fi ak ñeneen. c' est une position. voilà mais nag moom voilà réew mi daal. <laughs> Euh. mun naa ci uyu nit wax ci nit. Ah. waaye wor moom. Mm. Ablaye Wade. Mm. jébbalu ci ki falu. Mm. ndax dañoo follee ko. Ah. man yarewuñu ma loolu nàmpalewuñu ma loolu. waaw léegi euh, monsieur le ministre euh, tey loo mën a dëxëñee rek vraiment benn c' est une minute Macky Sall 100 léegi dafa naa teg na ay quelques quelques jours tey su ma la nee Macky Sall ni nga gis action bu mu defagum je crois. enfin on peut dire que def na presque cent et. waaw cent et quelques mois nañu wax yi def na cent jours. même si euh, dépassé na ko te su ma la nee boo gisee euh, euh, action am tey jii ah vraiment mi parcours carrément mi parcours est-ce que di ko jox boroon doon noté ko jox la moyenne ou pas. fi ñu toll mën nañu wax ne des na. mën mm-hmm. nañ koo nangul fi mu toll ci diir bu gàtt bi. waaye li ñuy xaar ci moom des na. gis nañ daal mi ngi jéem a sàmm kàddoom lu am solo ci kilifa. waxoon na ku fi lekkoon alalu mbooloo mi di nga ko goqat ma ngi ci yoon wi. yow goqe gi ma ma ko goqat ma ngi ci yoon wa euh, waxoon na fi dina wàññi dundu askan wi defe naa da koo cof rek. ba tey dépense ngi seer li ma ci tiital sax indiwaat nañu fi mu ne nguuru banque mondiale ak FMI. dañuy mm-hmm. dogal ba dégg naa ñu naa ñu courant yi moom lañ ko yokk. <laughs> en 2013 non yi amoon seen bourse ak seen aide. Mm-hmm. ci wax. dañu bëgg ñu ñu coupé ko ah. defe naa xanaa Macky Sall nangu loolu bokk mm-hmm. parce que loolu day indi fitna ci réew baaxul mm-hmm. xale yi étudiants yi moom ku leen yokkalut bu leen wàññil mm-hmm. mën naa indi fitna boo xam ne baaxul ci réew ak ci jàmm réew mi euh, gis naa ne aussi euh, borom dëkk amoon payoor coupé na ko tas ci guddi nga yaakaar ñi amoon borom dëkk yi joxoon ay oto pour ñu koy ñëpp di koy di ñëw nangu nañu oto gis naa loolu gis naa ne aussi euh, askan wi ñu ngi ñu ngi leen jege ji di waxtaan ak ñoom def ay conseil ministre yoo xam ne ni eh, lañ diggee yëpp bu ñu ko defee réew mi de na yokk mm-hmm. ndax ndax digg la ju juy jur jëfam déet maa ngi leen di bàyyi ay at pour atte leen ci loolu xool la ñuy defee mm-hmm. en tout cas daal mën nañ jàpp ne mais li ma ci amal solo nag mm-hmm. te loolu vraiment lu rafetlu naa ko mooy tëll tëll ji wàññeeku na sutura. oui oui commencé na am waaw au moins. Euh, wanewu. Mm-hmm. wàññeeku na extravagance beeg. non xool seen pasar pasar. waaw na. <laughs> te aussi Macky ni mu faloo. Mm-hmm. wan na Sénégalais yi ne du alal. Mm-hmm. moo joxe nguur. ok ak jëfin ak doxalin la waaye nit ñi amuñ njëg kenn mu leen a jënd. Ah. te aussi defe naa ñu ngi delluwaat daal ci euh, dundin. gu méngoo ñàkk gi nga xam ne ni la Sénégal ñàkk ba ba mu commencé am utin gi gën a gaaw gën a taaru ngir nit ñi mën leen jikkoo parce que dafa loo xam ne dañ jekkul daal di moo xam ne am na ko njëluwut am am na ko xam ne bi ma ko yeewoo euh, ndékkiwut waaw euh, yaa ngi wax ne ku guux nga gox ki noo ko waxee yaa yaa ma gën dégg olof non non non non c'est-à-dire danoon ku fi wan na alalu jàmbur ji dañ ko gox waaw léegi yow est gox ki nga yow yow goxee go wala kenn woowu la kenn jënteegul naa la wax leen nga man de nit mën na maa jéem a jaay doole ci politique mm. wala sama liberté de wala bañ am ci man loo bëgg. waaye yàlla bi ma tiim xam na ne bu moom mi xam fi ma toll ak li ma am ak ni ma yàggee ci nguur boo ko waxoon doomu aadama yi dañu xale bi ku ñàkk ful la ku ñàkk fayal la kii rusloo nañu xam nga man may dégg ay milliards ma wax la boog yàlla ma tiim man mosuma am compte ba am fanweeri million. yow mii mosuma koo am. 30 millions. mosuma am compte ba am 30 millions mosuma am ne ni xaalis bu ñu boolee ma moo la ko sama bopp mosuma koo am. monsieur nekk te weeru. ko yàlla ma tiim damaa or. mosuma ko am parce que dama gëm ne bu nekkee jullit nga di politique judd ñàkk xam sa devoir lu nekkee lu ñëw nga dajale boole denc am gu rafet amin gu ñaaw nga boole lépp am loolu bokk ko doomu aadama yi wala jaay dane bu nekkee bu weer dee nga fay ko mën a fay sa ñaar fukki moroom boo ko lekkee yow kenn di nga fët di nga fër wala di ko goqe wala di nga ko wëccu wala du yàgg say loxo waaw mais mais man xam nga xam nga dafa am loo xam ne xam nga euh, soxna si bu ñu la banti nag mm. ministre bu normal mënoo mënoo mënoo bëri alal quand je dis alal mënoo am ay milliards alors on est d'accord mais xam nga. mais mais ça passe que ça passe. yow sa kër gi rek monsieur le ministre sa kër gi yeeg. sa sa oto yeeg. Euh, oto bi ma jëlanteel sànq rek. ak yeneen ak yeneen yu bakkan yi nga yor. salaire mayu la ko kër gi ak fi nga nekk fu mu fu mu bakkane fi nga nekk nii kër gi lu mu bon bon man je suis pas nekk du ma expert en la matière mais kër gi lu mu bon bon soxna si wax leen cent millions yi tagg na non non soxna mu xaaju ko mat sax xam nga soxna si wax leen loo xamul mm. kër gi deux cent cinquante mètres carrés la deux cent cinquante mètres carrés waaye li ci nekk yëpp nag deux cent cinquante mètres carrés mm. mooy kër gi ma dëkk nii mm. te man aw ma kër gu ma luy xam nga lu may dundee man bu bés bés bu waree université mooy jàngale lañ ma war a fay la war a dundee. université ma amoo fa un million yu mat nag. franchement nag mënoo ma gëmloo ne wax ma ma gëmloo nag ne wax dëgg. mais yow moo tax ma ne boo bëgg a taxaw fii ne yow sa compte bu su am 30 millions. que amoo amoo ay kër yoo luyee amoo ay biens ak yooyu. c'est incroyable quand même dégg lu ma la wax. Mm. mën ngaa gëm mën ngaa bañ a gëm. Mm. man damaa oor yàlla mu ma sàkk ci moom lay delluwaat gisuma doomu adam ma jaral wax ci sama koor ak yàlla loo xam ne amut mm. pour lan ragal nit ba yab yàlla du ma ko defal benn doomu aadama mm-hmm. loolu laa bëgg mu leer d'abord bul fàtte ne Abdoulaye fukki ñaar def ci at nguur fukki at yeeg benn nekk naa ci lu jege fukki at ministre la des ba pare am liggéey di prof université yaa ngi dégg wax mais le salaire n'est pas important dafa ndànk dafa mais mais. salaire tamit euh, assistant nga c'est pas c'est pas salaire faramineux quand mais salaire boo jëlee ko ba tey. Ah, salaire ministre lay fay ko. mais parce que pour six encore. six mois jeexagul xam na nga jël sa bu neexee na nga sa na nga jëm na nga jëm mm. fukki at ak benn koo nekk ministre. Mm. ministre lañ la fay ni mu nga xool lan la. waaw ah, d' accord léegi <laughs> léegi euh, euh, ñu ngi fii nga xam ne euh, sa bureau la ah sa kër lañ nekk sa bureau la donc man damaa bëgg lecture trop te gis naa ne. fii macha allah euh, daal c' est le temple du savoir. Mhm. donc bi ma yor nii euh, Hamza euh, mooy Charles de Gaulle leçon de commandement dama ko jël nii au pif fin alors Charles de Gaulle defe naa ni li nga wax nii ak sànq ne yaa ngi prépare ay affaires. Mhm. donc ça ça entre en droite ligne. xam nga. sénégal yi bu ñu seetaanee dañu foog ne dañu ciy déggoo alors ko da ngaa dangaa jël livre ko jëlee nii xam nga man li ñuy wax traversée du désert waaw mos naa ko 2007 diir bu gàtt oui mais même pas deux mos naa ko lu gars yi wax la ma waxoon lay waxaat tey mm. yàlla buy defar day mel ni kuy yàq mm. bu ñu naan traversée du ba mu ñàkkee nguur ga mm. dem dëkkam colombe les deux églises dem ba néeg ba muy fanaan sax mënu ko chef bu baax ay ñooñam bàyyi ko di ko xarab xeeb ko jàpp ne jeex na ku yóbbu nañ ko ñaanal waaye ko moom suul nañ ko ci politique jeex na. Mm-hmm. fa la toog gëm la mu gëm di xalaat jàpp ca mu jàpp dëggu gore ba président ba nekkoon France defe naa René la. Mm-hmm. jamono dafa dem ba benn jamono France jaxasoo lool moo ne ci tubaab faisons appel à l'illustre fils France. Mm-hmm. Charles de Gaulle boo dogoo ci leen gëm ko jéemoo ca nax borom parce que mënoo koo nax. te nit ñi tax laa jóg ak def lu baax ak jàppale doomu adama yi fu ñuy defee lu baax di ko fekkee fu ñuy utee ñu baax dañ la wëri mhm. fu ñu baax taxaw diñ ko fa bokk lu la yàlla <laughs> def rek ndog la boo xam ne euh. natt la boo xam ne dala ciy natt xool noo toll ci moom ak jàngal la ci doomu adama yi ni ñuy jikkoo mhm. ngir nga xam ne nit ñu bari bu ñu la semee la nga doon a tax waaye lu nekk ci yow ci jikko ak xam-xam wala mën-mën voilà je crois que c'est un très beau point final <laughs> <laughs> à cette émission euh, donc ñu am mbégte vraiment euh, dalal ko ci émission bi ndax euh, comme ni ma ko waxee rek c'est c'est quelqu'un qui est très pertinent sur le plan des idées te yi mu wax nii tamit man wax naa sànq ne je suis très surprise ndax xaaruma ko woon ci lii mais xale dafay màgg donc màgg na léegi et c'est normal aussi que mu bëgg li mag yi bëgg mu bëgg ko ndaxte loolu jaadu l'appétit vient en mangeant et lui il a eu le temps de de bien creuser <laughs> <laughs> donc li nga xam ne euh, daal mooy ba mooy mooy bëgg-bëggam donc euh, bu dee mooy gën mooy li gën si yow yàlla na si yàlla jàppale ñu leen di remercier yéen tamit mbokk yi ñu doon seetaan euh, ñuy jaajëfal lu bëri si fii nag tàng na trop ñuy jaajëfal lu bëri <laughs> sunu partenaire nga tàng na léegi nag xam nga da nga fàttali ne nguuru Macky Sall dañ ne <laughs> dañu dund lu oxsat waaw mooy mag tuuti gone dara waaw loolu facture daa seer moo tax dañuy ah, toog di ñàkk di fomp rek. te yow léegi yaa ngi ci chômage. xanaa ma abal la leefaa nga upp rek. <laughs> <laughs> donc <laughs> émission bi noonu la donc may remercier euh, sama partenaire yi euh, ci coiffure bi euh, ak maquillage bi complexe Sophia la ci Mamel aviation sama mag ju baax jooju fàttalaay kenaa ma koy remercier di ko jaajëfal lu bare bare bari di jaajëfal aussi sama équipe technique bi ma àndal donc muy Hamza Diallo gis nga équipe nu mel yow sa bopp dangaa jaaxle <laughs> ci équipe bi donc euh, Ramza Diallo Ibou Cissé Malick Ka ci montage bi euh, nee na boo wax turam naa ne donc euh, l'homme l'homme inconnu donc mbokk yi face to face la woon ñu am ñu amaat mbégte dala dellu siwaat ak yéen beneen dimanche ak beneen kàngam jërëjëf